asalaamaaleykum mbokki Thiès maa ngi leen di nuyu di leen wax ni la ma daan def rek laay def waaye bi yoon dama andi lugg bees taq taq taq taq muy lan kaay wone ma kaay wone ma fan la nekk à Prestige moo jóg xaaram ma ñëw nag ci samay commerçant samay commerçante dugg ci biir marché Thiès ndax Thiès laa am Thiès laay tiitaroo wax dëgg yàlla lu muy def daal ci Thiès la koy ndëkkee muy Prestige Thiès ah kaay wone ma nag am nga sa boutique. am nga sa poulailler yow daal yaa xam mooy jaay rek te bëgg mu fes ñëwal Prestige Thiès ñu wone la sa yëf ah tey nag fi ma dugg si maa ngi dugg ci boutique mohammed Niang xanaa kenn mu ni xaw ma Mouhamed Niang ah kay ñi ko xam bari nañ du fi jeex ndax mohammed boutique am li fi nekk macha allah yu riche fi ne soo amee réception maa nga am ngénte wala nga am ceet wala nga am ndayale mbaa nga am magale ñëw a seesi Mouhamed Niang yuri sa fi am nee naa leen yuri sa fi am xool leen fii sama ginnaaw jesneer yaa ngi fi mbasin riche yaa ngi fi waaye macha allah tissu yu rafet yaa ngi fii ci kaw lu fi waay bëgg boo duggee ci boutique yi Mouhamed Niang di nga ko am à prix bu yomb nee naa la boo xasee ba teg sa tànk ci boutique Mouhamed ñaa soo bëggul a jënd sax ni nga jënd ndax lan ku dal la ku yaru la ku mën a accueillir nit la bu fi nekkul di fi fekk Fatou Kane mooy jigéenam di xaritam ak Amina boo leen fi fekk ma Mouhamed daal xam naa li muy toog ci boutique bi bari waaye tubaar fakkaay la gérante mu am ñu dal lañ muy Fatou ay ak ak Amina tubaar fakkaay la nga jukkaat fii ah musóor yaa ngi fii chantoum yi du fi jeex nga ñëw vax yaa nga ne voile yaa ngi nii nee la détail am na. en am na demi gros am na yow mi nga xam ne commerçante bu ndaw nga da ubbi sa boutique te bëgg a jaay ñëw a seet si Mouhamed ñaa soo ñëwee dina la sedd nga am sa bénéfice macha allah gis sa bopp ci njaay mi loolu fan nga koy mën a amee ci boutique Mouhamed Niang et eh, tu ni di teew nag kenn di natal ndax Mouhamed Niang mu ngi ci buur bi biir boutique bi moo moom boutique dama koy bàyyi mu wax dara xam naa sant na dara ci Cees waay Mouhamed waaw quantité ak qualité moo fi nekk quantité ak qualité te gis naa ko ah léegi dama la doon laaj ñooy def ak client yi. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Thiès Thiaye waa adduna bi yëpp waaw di leen wax nag yéen a fii si bitig Mouhamed Niang lépp loo leen bëgg rek incha allah boo leen ñëwee deen ko fekk macha allah tusi yaa ngi fi tusi góor yaa ngi fi filafil yaa ngi fi. kon mbokk yi gis dégg ngeen leen wax nee na filaafil yi yéen ñi nga xamante ni góor ngeen te bëgg ngeen a def ba mu baax ñëw leen ci filafili yi bu leen ko kenn yóbbu bu leen ko jigéen ñi mënal ñëw leen ci Mouhamed ñaa ngeen sees ko di ngeen sañ sa barafat macha allah kol yaa ngi fi yéen ñi nga xamante ni am ngeen seen goro bëgg koo njaagal te bëgg ñaag yaam doole ñëw leen ci kol yi kol yu riche fi ne kol yu joto fi ne kol yoo xam ne macha allah boo ko sàngee sa goro mu xam li nga ko sàng fan la am ci boutique Mouhamed ñaa gaay lu ne fàng kenn du ko jeex Kaiwone ma émission bu bees tax kan moo koy def sen xarit sen soppé, Binta Samb sama numéro téléphone 77 457 76 25 77 457 76 25 loolu kenn du ko laajte ñëw leen ma wonal leen sen marchandise ba mu neex te li may laaj bariwul Prestige yes